ànd ay xale te fekk def pexe ba mën am lu mu ci nit ñi rekk la mu ngi koo askan ci Baxdaad mu nekk pays bu xam ne bu ràññee la ci wàllu naataango ak wàllu xam-xam nekk dëkk bu ràññee ko ca yu bari ak jàngum yu bari ya ak xamaam yu bari ya ca rawaa sole na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam qaal mu ne nadawtu pencu woon naa bi dawaxi sawraa ci wàlli baxdaad sawraa ab boor ci baxdaad maa masiqatin ànd ak mbooloom ay sëriñ wala ay mag mi ne soara ci waykat yi dañoo mosaam benn penc buñ nekkoon ci baxdaad man ak ay gaa yoo xam ne ay waykat dëgg lañ ñu doon ñu xam ne la yaalaqu du haju lahum ñaa leen mu mubaarin aji garlante bi xubaarin ci pënd ñuy ñoo xam ne ku leen bëgg a di mbagg seen pënd sax doo ko seen walaay si du daw maahum ànd ak ñoom mu maarin aji weerante fi marin ci lëf ci ci lef ci lef fi marin ci lef ku bëgg a ñoom du ngeen fekk ñaari kàddu ñu noppi loola wala jiri du daw maa ma ñoom mu maa def aji werante fii met ci lef fa afat naa ñu bëril waxtaan mooy ñu bëbal fi hadisin ci waxtaan bu xam ne yaf dahu dana mu gàcceel alataar ay tóor tóor ñu soobu ci aw waxtaan bu xam ne moo gën a rafet fuloori tollu dër te xóotu nañ te ba guddal ca ilaa nafas naa ba ñu annahaara ba cëg bi lii ci lañ nekk ci suba ba digg ba cëg jot xam ne waxtu xendal jot kenn ku ne la bëggoon a wax itam wax na falam maaxaada ba ñiisee darul askaari soowam xelaat yi daru mooy soow mu bëri mooy kenn ku ne lam dencoon ci xelam lam bëri woon wax na ko ba mu jeex bi loolu xamee wasabat te jéng an nufuusu ba kan ila awkaari jëm ci tàgg yi wakru mooy dëkkuwaayu njanaaw waaye dañuy jublu dëkkuwaayu nit xam ne nit ñi bëgg nañoo dem ci dal yi la max na seen nañu génne ku nañu xajoosan màggatam jigéen dañoo seen màggatam jigéen tuqbilu moom mu jublu si minal boo di fu sori tukkee ji sori seen nañ ko mel ci ñun la jëm waaye sori na wa tuxdiru te mu gaaw ixtaaral jur bi mhm. gaaw a kosu gàtt kawar mhm. ngir pepp mu ngi dox dox bu gaaw itam waxati tallat te mbir moom toflu na mhm. sibyatan ay gune an xafa ñu gën a xoos minal maxaatili ci banti kiccu xam na ay gune yoo xam ne dafa mel ni ñoom la ànd ak ñu ko ñu nekk gune yoo xam ne ñu tuuti lañ ñu yooye yooye lañ waan xafa te gën a néew doole minal jawaasili ci ay cuuji pitam gis nga bu baax a baax an xafa ñu gën a xoos minal maxaasili ciy kiccu waat xafa te gën a doxaat yi minal jawaasili ci ay cuuji pitam jawsal mooy mufrad bi fa maa kasabat saxut moom màggat mi israat naa ba mu ñu gisee an xarat naa lu may mu gaar ñu màggat mi nag ba mu ñu gisee xamatul beneen soxla daf ñu jëmal si rek ci ñun xataa yi sama xadarat naa ba mu ñu teewalee nag ba mu ñëwee wax na ne xayallahu almaarifa ba wax bi àgg xayyaa yal na dundal yal na naatal allahu yàlla almaarifa sang yi way lam yëkkun doonte nekkuñu maarifa day xamaale yéen sang yii nii nga xam ne defkati njëkk ngeen yal na yàlla naatal leen dundal leen xam naa sax xaw ma leen ngeen ma ñaanal yàlla moo xam leen yaa ma alal amili yéen delluwaayu aji yaakaar yéen ñi nga xam ne yaakaar yi ci yéen lañ koo jofalee wasi ma alal aramili tey wéeduwaayu doole ñi yéen ñi nga xam ne ku ñàkk ngeen mm-hmm. xam leen ne an nii man mm-hmm. min sarawatil mm-hmm. maa ngi bokk ci ay sangi giir ñi samay bokk sang lañ wa sariyaati naqaayil ak way teddi jongama te itam ci jigéen ñuñ saabu ci la bokk lam yesal dañu ahli sama ñooñ wa baali ak sama jëkkër yaxulloona di wàcci asadra një bopp mbooloo asadra bopp mbooloo mooy dënn mooy bopp mbooloo lañ ci jublu jigéen ñi nga xam ne maanaam góor ñi ma denc ak ñi bokka fuñ mos a dem ñuy jiite yaxulloona de wàcci asadra bopp mbooloo waye diroona te ñuy dox alxalba xolu xare xare buñ mos a dem itam ci kuréel ba nga xam ne ñi gën a tekki ñoo fay fare ci la ñoo nekk wayum toona te ñuy warle adara gannaaw ar bu ne itam may nit lu war dem seen mbir la woon wayoo loona te ñuy méngale al xéewal yàgg nañu jëriñ man nit ku am juddu laa te itam jigéen laa ju foor parce que samay baay ak samay jëkkër hmm. fu ñu dem ñooy jiitu hmm. xare bu ñu mos a dem nangam heure bu ngi fajal li ñuy soxla hmm. falamma arda bahala gee nag addahru jamono al aadaada ndimbal yi gis nga bu baax a baax wala dëgër ya ba nga xamee ne jamono xalaat na sukkandikoo kaay yi wa fajaa te mu méttital alal baada res yi bil jawaar yi ànd cër yi ba jamono dikkee ak lam dikkee def lu méttee méttee métti wan xalaba te mu jàllarbeku moom jamono zoxaran mbir moom muy gannaaw li bannin jëm ci biir xam ne dafa wëlbateeku la faree woon kaw faree suuf li faree woon suuf faree kaw mooy ñi man-man ñoo daanu ñu mënutoon dara ñoo jox bi jamono xamee bi demee nii nabaa booba la becci ngal an naasiru aji xool ñu daan ñëw di ñu seetaan si booba la ñuba wa booba itam la becci ngal la bañ nabaa la bañ an naasiru xool wa te ci la becci ngalee alxaaji bu hiit ñu daan garde wasaaba te dem alaynu kaxeegi amatuñ xaalis wa fuqidat te ñàkkees raxatu noflay wasalada te géy a sëndu dañu béewi mooy buñ lijjanteen bi du sotti sëndu lu ñuy kosee la wa waxana te doxadi alyaminu kattan wadaa te sànku alyasaaru xoom wa baana te facci al marafiq sukkandiku waaye marafiq yi ñuy soxla yëpp ñàkk nañu walaw yabqa desatut lanaa ñi xaal ñu sa niyatun gëlëm ak sa niya wala naagum bi caageen gëlëm ak mu sinna ba nga xamee nag jamono wëlbati na mbir ñun lañ xamoon yëpp ñu ñàkk ko ñu ñu ngëboon di xam-xam ba itam bañu lañ mënoon di xam-xam ba itam tali li mu am daal wan xalaba te mu jàllal be ko doxran bi moom muy gannaaw li bannin ci biir bi loola mee na ba la bañ an nadiru aji seet dafay nitu bët wa jafaate beccingal alhaaji bu aji hii aji hiit muy bëkk néeg dafay nitu xef hiin di bët wasaaba dem al aynu bët al aynu kaye dafa niru bët wa fuqidat te ñàkkeew raxatu nof lay dafa niru ténk wasalaata te géey asandu daju bay dafa niroo xasadu waana te doa di alimenul kattan dafa niroo ndeyjoor wadana te sànku alisaaru koom dafa niroo càmmoñ wabaana te doa te facci almarafiqu marafiqi muy ngaanaame di ko jëriñoo dafa niroo ay cooñ wala mu xadasatu lanaa ñaal mi saniyatun gëlem ak saniya dafa niroo bañi kanam wala naagum du caagee musil na hmm. dafa niroog bañ dafa jëfandikoo tawr yi dafa jëfandikoo ci baat yi hmm. yeneen i maana fa mudix barra hmm. waxtu woo pëndee alay su dund alaxdaru bu daa ji naat dund bu naat bañ doon dund ba mu pëndee was warra te jeng almax boobu ku ñu sopp ka alasparu ku daa gel almahbubul asfar mooy wurus mooy dinaar bi loolu xamee is wadda la ñuul mooy la lëndëm yow mi sama bés alab yadu ba aji weex sama fan yu leeree soppeeku lëndëm wam yadda te weex xaw di sama wàllu al aswadu ku daa ji ñuul ma doxee ca béjjaaw ndax tat ak jaxle xataara saa ba yërëm lee ma alxadubu noon al asraqu bu daa ji tat ji nooneel salaat noon bu tat nooneel sax mujj na dema yërëm fahabasa baax na al mawtu dee al ahmaru bu daa ji mooy bu daa ji métti salaaw dee lu muy métti métti defoon ko te jeexaas bi sax moo gën suñ dundin wëttil wii ñi ma topp nag bu ne yi ngeen gis nag man ñi nga xam ne saraw na yeneen leen a gis gune yii kum ci maa doon xëy na woo furaaru woo mooy nattum jarut maa la yooyu de gune yi yooyu rek mu ngeen ngeen ne ko waa ji wa tarjumaanu woo lapp too xam istiraaru woo mooy gelam ku ngeen ko xool dara mi tam xam ne ko feebar xuswa bixyati aadihim dayob càkku téefal kenn ci ñoom te nag lu gën a bëri ci luñ bëgg surdatun surda la surda ñam la bu xam ne ñu ngi koy lëggéeyee ci yàpp ak mburu waaye lëggéeyin wala xamut nag waaw moo tax munu ma wax ne lii la ida mal xubsu taqdimuhu bi laxmin fa daka amanatillahi sëridu waaw mu ne sërid ñam la bu xam ne yaa ngi koy lëggéeyee ci yàpp ak mburu waaye boole yi ma nag xaw ko moo tax ma doon alaw dëgg yàlla waqusa umni waqusaara umniyati yi dayoo mébétam ñii tey comme si maara ko sëriit mu lekk ba suur nga jox ko mbubb mu sore lañ bëgg bu kuntu nekkoon allah abdula ba may jox al hurra deru xarkanam illa lil furri ndara ñaal ko wala waa ni donte man muttu deena mi na ngir lool man nag dama giñoo ne kudu si gor du ma ko waxati sama soxla du ma ko waxati sama soxla ma hakka jil misla zuhri fa tawalla anta jamia amri mooy nit xesanu bi mu bëgg ci wexam bi la ko mën a amee kon nit taxawu boo ko jubu ci mbiram ci taxawu boppam la ko mën a amee wa ida qasadta li haajatin faqsid li mutarifin bi qadri léegi loru boo xam ne dara mënta ñàkk na waaw ba ngaa li haajatin faqsid li mutarifin waaw nit ku yow kum jot lépp loolu nit ku yow du ko def kum war a lekk kum war a xàbb kum war a lii kum war laa ba maa da ko xam waaw kum jot rek lépp nit ku ne dafa kum war a lekk kum war a wala an ni doonte man dee naa mi na durre ngir lor dama dogu woon ne sàllaaw daal su dee ci lor itam koo xam ne ku ni man waru di soxla du ma ko tawatal dara waqat naa jël nii déyaale naag man alquroona tu bakkan bi an toojale ci bu fekkee sax xend kum fi yéen almoona tu ndimbal waaye ni ma leen gisee nag ci laa jàppee ne ñu jara wax soxla ngeen waa dana nii xamal na ma firasatul haw baa yi njortul bakkan bi an na kum ci naga yéen yanaa bi amal hibaa hmm. yenay balluwaay mbay may yenay balluwaay may kem li may xamee nit daal hmm. li ma gis mooy yéen ay jëriñe kan ngeen hmm. fa natara yal na leeral allahu yàlla imraan waajoo xam ne abarra dëggal na mu xasami sama ngiñ wa sadaqate mu dëggal tawassumi sama settantal kon képp koo xam ne fexe na ba li ma foog ci yéen di dëgg yal na yàlla leeral bi wa nazara mu xool ilay jëm ci man bi aynin ci bët boo xam ne dana ko laatal al jumudu way yuqdiha te dana ko dindin laas al joodu tabe ku ma xool bëtam yërmande te du xem ci xool ma waaye li ma yërëmee nag waaw mu jox ma lu ma wa yuqaddiha te dana ko dindi laag ak jolu taw qaala al haaris ibnu hammaam haaris nee na fahim naa ñu daal di gëlëm xaama hmm. yehiimu li baraaxati xibaaratiha hmm. ngir fasaaha ak waxam hmm. wa mula istiaaratiha ak way xorom muy istiaara yim doon wax naan nabal naasir wa jafal xaaji wa sahab al aynu fuqidati rahat yooyu mu doon wax noonu wasala da sën sëndu wa wahanal yaminu wa daatil yasar wa banatil marafiq loolu ñu xéemu wala yu xal naa saniyatun wala naaf yooyu ñu xéemu ci lool lool wa qul naa ñu wax lahaa ñu ne ko ee xas fatana fi naal na ñëpp kalaamu gi sa wax ji de xam nañ ne wax wi sar dee moom jàmbaar de waaw fa kee fa naka la nag ilhamu gi sagra bu wëy ana noomeel ci wëy fa qaala mu ne leen ufajjiru danaa ballal asaaram rek wala faxra waxuma ko ngir dam li fi waaye dëxër dëxër su ma la wéyee nga jox ma la nga am du damm nag xaalis ne bokkul naa ñu ne ko in jaxaltinaa boo ñu defee min ruwaati ki ñi bokk ci ñu soloo sa wéy kon lam nab xal duñu haay bi mu waasaati ki ci dimbalante yow ñu ne ko xaj na de loru gare waaye bokk na ci li ñuy sawar loo nag ci defal la ah nga mosa du ci dara loolu lañ ko fa qaalat mu la uriyannakum danaa leen wan awalan ci njëlbeen siaar yi sama làmbaay li may njëkk a def mooy wan leen sama yére bi ni mu ràppee ba lool gi dëgg la la urawiyannakum topp ma solal leen asari samay wëy su ko defee ma defal leen samay woy fa abrasat mu génne rut na dirhen lafitu mbubu wu daaji ràpp mu génn lafitu mbubu ràpp wa barasat mu génn bir sa temps joosin génni nu màggat dar sin ku daaji tat ji jommale mu génn comme màggatu jigéen waan saa mu xaras tëppul di wax ne as ko ilallahi ba mu xàgg mm-hmm. eh, kon ñu jàng loolu ba suba jàmm insha allah dañ ne ko daal ku mën a wax nga waaye wéy na xamaguñ xamaguñ nun nun nuñ ci mel mu wane nun ci xamee mënoore ñu sàkku ko ci am luñ ko dig mu génne lafitum bu mel ni mu dara tàmbali wéy na mu ne asku ilallahi istika al marid mm-hmm. rayba zamani al mutaaddi al baghir mm-hmm. yaa qawmi inni min unaasin ganu mm-hmm. dahran wa jabnu dahri anhum gadid ba mu àgg mu ne asko maa ngi tawat ilallahi jëm ci yàlla istika al marid tawat ak aji hoppu rayba zamani jëng ak jamono al mutaaddi jamono mari aji jàggati al baxir jamono mari mu ñu bañ jamono tooñami weesaaf yi ma teg ak mettit yi ma teg maa ngi ko jàmbatal yàlla jàmbatal ku feebar mooy mbir moo xam ne moom man dara yaa xaw mi yéen samay bokk mm. inni man min unaasin maa ngi bokk ci aw nit xanu hmm. ñooñ sax nañ xanu la ñuy wax tente hmm. xanu la ñuy wax xanu hmm. ñooñ sax nañ ci jamono ab jamono wa jaf nu daxri te mbatam batam jamono fadilun aji gëmm la xanu walif leen maa ngi bokk ci aw nit ñoo xam ne dund nañ jamono bu yàgg xamuñ tolof tolof inni man min unaasin maa ngi bokk ci aw ñoo xam ne dëran jamono bu yàgg wa jam nu dëri te mbatam batam jamono wax aji gëmm la an leen faxaaruhum seen ndam laysa lahoo ñaxaalu ko daafewoon aji jañ xam ne suñ damoo kenn du mën a teppi ca lañ wax dara wasiituhum seen turu bu rafet seen bayre seen turu bu rafet mustabidun lu bëgg la beneen war ak ci diggante bi léegi fu ne rek seen taggan fay nekk fu ne rek seen taggan fa siiw kaanoo nekkoon nañu rawdan dédër aridan buraaji naat isaama nujaatun bu jëfee forluwaay nga firi haale en wasat fi sanati ci at asahba mu daal di tabbi beekoor soo amee moo xam ne beekoor dafa métti ba daanaka dund jafe danga fekk seen barab yi di féegukaay nit dafay mel ni toolu bu naat rek cay féegee kaanoo nekkoon nañ isaama nu ñaatun bu jafee farluwaay nga firi en wasat bi sanati jaar asahba muraaj rabdi muraaj rabdi bee aw dan di dër aridan bu daaji naar tu def na taal li saarina ñaal wuy rañaan yi niiraanu mum seeni safara ak bu ne ñu ngee taal ay safaray berndel ci seen barab yi doxkati guddi yi dafa féeg dafa reeree dafa noppaloo wuyu ne moo ne ñuy lexal a day fa gan laxman yàpp xaridan wu daaji tooy mooy yàpp wata boor xarban bu ñëw dañ la jox yàpp boo xam yàpp woo xam ne raya bees la mooy yàpp wata boor laxmun tariyun mooy yàpp wata boor wayu ne moo ne te ñuy leexal a day fa gan laxman yàpp xaridan wu daaji tooy maa baata musul fanaan jaarun dëkkandoor lahum ñaa leen saaxiban daaji xiif seen dëkkandoor mos dafa naan wala xaala mos da wax seen dëkkandoor li ramxen ngir tiit seen dëkkandoor mosul tiit tiitaa nge tax koy wax na ko xaalal jarir xaalal jaridu duunal qarir masal la mooy dama jaaxle taluma la ma daan def xaala al jaridu fotak dee doonal xaridi walis wëy ki ko njëkk wax mooy Ubaydul Abras saayir gaay lii la moom ak Umrul Qaysi jamono ante buur boobu ñu dee wax Noomaan dafa amoon ñaari bis benn bis mu tuddee ko yow mu Noomaa beneen bi mu tuddee ko yow mu Buusaa yow mu Noomaa bu jotee nit ñi ñoo ñëw ci kër gi ku àgg ci moom mu jox la ba sa xol sedd suñ demee ba bëccëg bi jeex ah ku ñu àgg ci moom mu def xam ne jeex na yow mun bu jotee dafay génn ne day rëbbi comme dajee rey comme dajee rey noonu daan def waaw ah, mu noo moo daan def loolu yàlla def mu dajee ko ma bay dum abras ci bis bii nga xam ne yowmul buusaa la te xëy na la ciy gaayam mu ne ko ah yow de wax dëgg yàlla bëgguma woon a dajeeg yow tey de waaye gannaaw gi la dafa doxal ah duñ la mën a bàyyi noonu waaye dama bëgg nga wax loo rek ma defal la ko balañ laa rey mu ne comme man damay dee bëgg suma jaay dina dara mu ne kon dama bëgg nga wéyal ma balañ laa mu ne ko dee gi tax na talu may wéy ci la ko xaalal jaridu duna al qarid ah xaala diggale na al jaridu fatak dee duna qarid walit wéy saa soo xam ne toll na barab balañ ko xamee woon talatu ko rek ci lay waxee xaalal jaridu duna al qarid loolu noomaa nekk na ci ab diit waaye benn bés la dema dem ba nga xam ne xamatul na mooy def mu mujj far ba ko te simple baadolo moo gàcceel trop waaw moo gàcceel trop moo tax jaay doole baaxul yow mu buur saar dafa jox dafa jox mu jóg ànd ñam ànd te ñooñu sori kum no addi ci la bokk ñii dox yàlla dem ñu dajeeg benn waay boo xam ne tay yu la li ko taxoon a génn ci bis boobu mooy njabootam ñoo amu doon luñ lekk ay guneem yu ndaw mu ne leen wutal luñ lekk dox na lu sori door a ba xamee de dellu dajeeg noomaan lu mën jàpp ba mu ko jàppee ne dana ko rey mu ne ko man de ci sama mbiri njaboot laa nekkoon de dox dama bëggoon nga may ma lii ma leen futal ma dem jox leen ko fi nga nekk nii dana la fekk si bu soobee yàlla normal na ko loolu moom mënta nekk su dul ne dangaa joxe ku la garan koo xam ne su jant bi sooyee te gisuñ ko te gisuñ la yow la rey te waa moom kenn rek la mu si kenn mu gesu Sariik ibnu Adiyin ki ànd ak Noomaan na ko dee moom mënta ñàkk doonte nit a koy daw gannaaw li ma bëgg ni yow boo ma ko nangul du tee bu sa dee jotee da dee soo ko nangoo te sa bakkan ne wu ci nag du la tax a dee dama bëgg nga may ma garante nga garante ma ndeg rek yërmande njaboot gi ma bàyyee gannaaw sarikum na addi yéen nag waaw d'accord naa garante naa la waa dem ndege ku la dëkk ba mu demee jébbal njaboot gi lam leen doon wutal toppatoo yi nga xam ne mënu koo bàyyee gannaaw te leeral ko da ñëw si defekk si nooma waaye fa mu dëkk sori gëm tax na mën na gaaw ak si ñu def ba njëtt bëgg a ji suñu waa ji noomaan geesu sori kum naa dina fa sa waa ji de léegi tey de baa a de dem ba nga ne fi ne jant bi sona daanaka xam ne heure bi moom jeex si na noomaan wax sori kum naa dina ko léegi tey ba nga jaglu fa ki yow garanto foo ñu seen kuy daw xel wu da ñëw ndege tayi bi la daw lool da bu ñëwee ne accident dërët na ngeen baal na fu ma dëkk muusur te bëgg mu tarde mu man taxaw taxaw taxaw mu ji taxaw mu ne sëriñ im no adi lu way tabe tabe tabe man da nangoo man da maye lim nangoo maye tey moom mooy ki nangoo walante damay ba kanam daanaka ci soxlaal doomu mu ne koo xam ne itam ngoram jaral na ko bu ca dee itam na demee nii mooy tay yi kii kenn gënu koo doo gor kii kenn gënu koo doo moom muy borom doole ji ndax mooy doon saay saay ci diggante bi na ko seeta na ko seeta ah na ko seeta na ko seeta de mu ne moom fii la yem tey fii la yem boobu la dimbale taay bi mu ñibbi këram boobu la dimbale mu ñibbi këram mbir bi noonu la jeexee noonu la jeexee fa xaya fa xayada dal di ngiisal minhum ci ñoom surufu rada soppati halkande mooy soppati dee xew-xewi dee bi xaara joodin ay géeji tab yoo xam ne lam na xalaa jortu wuñ leen woon tax yi du ñuy ngëcc ba mu paree mbiram dee rek li ñuy wax deeyal ma dee moom amul mais deeyal ma torox moom danay am ñoo doon borom man-mani di doxal mbir yi seen ak dee lu bari taxaw ci doxal ne kenn foofu doon ne dana taxaw wa ooti ha dénkees minhum ci ñoom bu toonu sara biiri suuf usdat taxaami ay gaynde xaaruwaay usaatal maridi ak wuy garbali aji xob ñi nga xam ne ñoo fi doxoon la koogaay daan taxawu nit ñi ci seeni soxla ñëpp dee tax na tey ñu ci biir suuf si usdatahaa mi gayndee xaaru waay usatal marid ak wéy garbale aji xob fa mahmali suma sëfu waay bandal mataya ci gannaaw waru waay almata gannaaw la bagaas yu bari laa daan xame te ko ci ay gëlëm nit topp leen te nag mbagaas su laa xamee xama fu mu ko teg maa koy gàddul sama bopp bu moo te nii sama dëkkuwaay bandal yafaan yi ci gannaaw domo yi alhadidu xur la dama daan nekk fu signalé wu fu ni toll dama seen ñi dama fa fekk may leen defal njëriñ ndax nga jama xamoon moo mayoon loolu te yàgg na ci ràppte fu xam ne suma melokaan bëgguma ñenn ñi dew gis furuq rek lay nekk moom te ni sama dëkkuwaay alxasis xur la ban leef maa ci gannaaw doomu waaxruqii samay cuuj sama doom yu ndaw maatatali du ñu deñ tastëkkii da tawat bu san weñsu bu xam ne la foo ñi al na ko wamee doon mel xat fi kulli yawmin ci bés bi suma doom yu ndaw yi hmm. bis bu set rek hmm. xam na mettit wu leen di gaar hmm. te yëpp ñàkk ko waral luñ manqué ci lekk luñ manqué la ci wér luñ manqué la ci kodday luñ manqué la ci nekkuwaay suma doom yu ndaw yi heure bu ne la xam na lu ñuy yóoxu loo xam ne wër ne lor bu diis la te ñàkk ko def waa bruxi samay cuuj matatali mosuñoo dañ duñu dañ tas ta kii de jàmbat bu san weñ la ko boobu ñu na ko mi doon fi kulli yawmin ci bépp bis isaa daha bu ñaanee aji jaamu fii laylihi ci guddim mawlaahu boroomam naa daw ñu woo ko bi dameen ci rongañ yëf yëtu yooyu dana bëgg sàllaaw buñ toogee ba guddi sori jaamikati yàlla yi jaamukati yàlla yi jox di deyaale ak seeni borom ci ay rakaat ak ay tasbihaat ñoom it diit boobu la ñuy jóg di jooy ndax dañuy xiif ba duñ mën a ne yaa rasiqan naabi yow aji warsagal doomi baaxañ fi xossihi ci tàggam yow mi warsagal cuuje baaxañ ci tàggam moom nag mooy warsagal leneen itam nag du cuuja baax ni rek lay warsagal waaye dafa am nag lu tax mu tànn tudd cuuja baaxañ loolu moom la borom balaax yi di wax tankiit indi baat boo xam ne maanaam mi ngi koy saxalal du moom rek la de maanaam waaye dafa am lu ko tax tànn nag loolu moo ci nekk dégg dañoo wax ne baaxañ bu nen bi tojee cuuj bi day weex su ko defee tuuti bu weexee ñu ko jur dañ koo gedd bañ koo ne juruñu ko duñ ko nangoo xol du ndey ji du bàyyi ji dañ ko fa bàyyi rek suba sama borom muy bind ay rab yu sew a sew a sew yoo xam dañoo nekk ci peggam tàggatal ko rab yooyu mu de ci lekk fekk ba dungi wi suufoo ñuul ñu ko jur doog a nekk da ko xol xam nga foofu benn sabab amu ko yërmande yàlla rek moo fa subaa ni muy warsagalee cuuj boobu bi xëyri sababin loolu lay gendee mu yow mi nga xam ne léeg-léeg nga warsagle bila sababin ci sa yërmande rek yow mii def loolu wa jaabiran azmi te daal yax alkasir bari bu ñu damm bu ñu damm mahit mooy luñ damm dammat nga xam ne tolof nga defee rëq ba attex yal na nga dogalal danaa ñi xal ñu man ko xam ne arduhoo deram naqiyun aji set la rahidun lu ñu fóot la min dana si sëmmi ci tilimam nañ ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu dajalal si gor koo xam ne ci ahlul muruati la bokk xam ne boo ko tawatawee soxla du la bëgg a gàntu day mel ni safin yi kan inna atidaari ila man jaa yasaluni ma laysa indiya min ihdal musibati mu doon ko xam ne yutfi u dana mu fay naaral joxe safaraaw xiif an naa wëlees ñu mu fegal ñu safaraaw xiif mag sama doom yu ndaw yi wala bi masqatin doonte ci njar doonte am njar layedo min haasirin ci soomu forox aw maxiidin wala soomu ñu faat mooy soo moo xam ne génn nañ diw gi xëy na forox bi weesu ràpp dëgg-dëgg dégg mooy soomu ñu njar ba har fatan ndax waay am na waay hmm. yegg si fu koog dana mu huññi maa hmm. li nga xam ne naaba hum jot na sama gune yi hmm. ndax lii daal sama gune yi xam na ku ci mën a taxaw ba mu dëñ wayax na mu te mu màng a sugra cant a tawila gudaa ji gudd alarida gudaa ji yaatu su ko defee mu am gërëm lu xam ne dana àgg fu ne fa walladi giñ naa ci buur bi nga xam ne taanu dana toroxlu ana yaanu bokkul ana yaani waanatil wujuhu lil hayyil qayyum taanu dana toroxlu an nawaasi yi njëhi bopp yi la wañi hal ko maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne moom la ñéppay toroxlul yawma wujuhul jame bis ba xar kanami mbooloo mi soodun yi way ñuul lañ wabyadun te yi way weex lañ yow ma tabyadu wajoo wa taswaddu wajoo maa ngi gën ci yàlla moomu ne lawlaa hum bu du doon sama doom yu ndaw yi lam tabdu du feeñ lii ñaxal ma safatun walla xar kanam su du doon yërmandey njaboot ak xaqi njaboot kon ñàkk lu ma xamee rek du hmm. ma dem ci kenn hmm. naan ko nangam ak nangam ndax xam naa ne mbir yu bëri hmm. moo gën a xeyof laaj wa duqtu mararatal asyaai turran fama taamun amarra min assuali mu ne yu bëri mos naa ko waaye lu waxee ne laaj nit ñi ci liñ xam moom mosuma ko xam wa duqtu mararatal asyaai turran fama taamun amarra min assuali mu ni waxtaan yu bëri mos naa ko waaye lu gën a wax laaj nit ñi ci liñ xam loolu mu xaw moo tax bu duuloon ak ñoom lu wax loolu man du doon ku koy góox mukk wala te sa daytu ni ko noon du ma gaarlu linaz mil xaride ci noose ay wëy nekk fii di génne ay wëy konoon du ko doon def qaala raawi xaalis ne na ko wallahi giñ naa ci yàlla laqad saddaat tojeena moom màggat mi bi abiyaatiha ci wéyam ansaaral qulubi xaaji xol yi tojiti xol yi bi mu wéyee wéyam yi dafa toj xol yëpp jeexital ñëpp yëngat xawatif yëpp yëpp yëpp te way noonu la war a demee wéy dafa war a làmboo sigra ya tayiba war a yëngal sonrul insaani war a mu la wala mu làmboo hikkamun baaliga waaye loolu bu amul ci wéy mhm. kalaamun muqataan mawsuun la rek wax juñ natt la rek mais sihoru moom mhm. dafa am alaq ak sonhorul insaani dëgg dëgg mhm. dëgg dëgg nan ma war a am dégg nga waaw ak sihoru in lam yakun sikra wa atifatan wa hikmatan fa huwa taqtiun wa awsaanu te wéy bu fekkee làmboo woon ay sigra yaat yu am solo yëngalu sonro nit lam boo ay xikam baalexa kon wax juñ dagg defal ko natt rek la mais du wëy du wëy du wëy du wëy du wëy dégg nga hmm. waaw dama ay mutta sangero na ñëw fépp ay sonra ay mutta sangero na ñu dollu wéykat ma fépp ay wéykat bu ñu demooloo gën a kenn mënu ci woy mbëre mënu ci woy xam nga bu baax a man mënu àddina joteewul rek jàng daal li aju jàng moom da nga koy jàng doo ko def rek waaye jóg coow li topp la rek ndax li aju jàng moom boo ko jàng di lu mën a rek jóg coow li topp la rek loolu moom li aju jàng boo ko jàng di jàng ko rek sel la bu baax a mbëre mënu ñëw woy sel bu baax a wallahi giñ naa ci yàlla la qasadaha tojeena bi abyaatiha ci wéyam ansaaral qulubi tojiti xoli xaaji xol yi wastaxrajat te mu génnee ci xabayal jiyóob ndaxañ te fi poos yi mu ne yàkk na poos yi toj xol yi ci wéyam yi xata mahaha ba may na ko e man ko xam ne diinu hoo baaxam alimtiyaax mooy mayu ba ñu baaxoo woon de ñaan sax dañoo mujj may ko bég na li rif dihaa ngir xontam man koo xam ne lam na xamu jortu wu ñu ko woon yartaaxu muy bég baatu diina mustarak la baat la bu bari ay maanaa dégg nga gis nga bu baax a baax eh, bàyyi ñes am na benn téeréem boo xam ne ñaari diiwaan am na ci diiwaan bu ñuy wax nawaadirul hikam mu ngi làmb ay xasiida da nga ci fekk benn xinaa xam ne baatu diin lay leeral maana yi muy am mu ne mu ngi ko jëlee ci yi dégg am na am na ko am na am na foofa diina yi ba mu àgg dina ko bu baax a baax xataa maanaha may na ko man koo xam ne diinu hoo diinaam alimtiyaahu mooy mayu wartaaxa te bég li def diyaa ngir xontam man koo xam ne lam na xasu jortu wu ñu ko xoon yattaahu muy be bala ma xam-xama ba feesee nag jay bu haa jibaam tibran ci wurus bañ ko joxee ba nga xam ne léegi xoomal na wa awlaaha te méngale ko kullun képp min naa ci nun bir ranjek tawallat joxe na gannaaw yet looha mbir moom dana ko topp ala saxiru gune yi mu jóg gune yi topp ko wa foohaa te gémmiñam faaxiroon aji hubbeeku la aji yëkkateeku la bi sugri ci cant mu ngi waxi sant itam fatra abbat dal di yëqoolu aljamaatu mbooloo mi baada mamarriha ci gannaaw rombam ila sabriha jëm ci nattum li tabluwa ngir na natt mu waqia birriha tabay njëkkam kon mën nañu jàng loolu mën nañu mottali maqaama bi léegi nag mbooloo mi nag gannaaw bu màggat mi demee ñu ne ñun nag kii dañ ko war a topp ba xam daal liñ joxe fi mu dugg ñu ngi koy doog a gis wax na ñu dëgg ci waxam jox ko ndax ni mu waxee la demee te kon liñ joxe moom ku jar a jox lañ ko jox wala li ay naxe rek la te kon jar nañu xew ci boo léegi bu ñu lii fëkkati ah loolu tax ba dégg ma doon ne fasra ab yuqoolu aljamaatu mbooloo mi ba dama ma rihaa ci gannaaw rombam ila sabrihaa jëm ci nattum li tablu ba ngir na nattum waaqia bir rihaa tabbaayu njëkkam baax na foofu la euh, ñun nag euh, waa ji wax na bañ jox ko waaye nag ndax moom suñ ko def jar na koom jaru ko loolu daal moom moom jaroon na lijjanti xaalis ne fa kafaltu ma dal di warlul lahum ñeexal leen bistimbaati sirri ci ballu lu mbóot almarmuus ma di muñ junj may loolu mu teeleen ko ci suma loxo danga ko di jënd xaar leen ma léegi ma ñëw wan naxattu ma buur ba mu ko defee ma buur àq foo di di xeñtu di topp hmm. asara laa joosi jeexiti màggal ma jox rek topp tànki màggat mi rek topp ko rek topp ci kawam rek xattan taxaat ba mu xàgg ila suuqin jëm ci ja muy dox ba àgg ci marché moxtasatin bu daa dafa fees del del del del bayee da nga bëgg dugg sax doo xam foo jaar subaa kooku bëgg dugg ci marché bi te mande bi dafa mel ni tibb bëgg jàll ci puro gu xar rek xam nga borom fotee du mën jàll masala dafa mel day fot ñi bëgg a dugg ndéeg fees gum fees mm. moxtasatin bu raa fees bu naa mi ci mbindéef mm. moxtasatin bari buñ jagalee mm. bi si haa mi ci rey rey loo moom mu ak ci benn marché bu xata xata xat fan xamasat mu dal nuur fil xumaari ca lëggi nit ñi mu dal dugg ci biir nit ñi wammalasat mu dal rëcci ministre bi ci gune yi alax maari ñu de way dox ndax na gune yi ba réer bu niim àndatoon nax na leen bërier bi su maaja topp mu jeng moom màggat mi du xullu wi baalin ci féex a xel ilaa masjidin jëm ci jàkka xaalin judaa ji féex ba ne bari ci gune yi nag xelam dal na jàpp na fi mu ne kenn gisatu ko ku muy nëbbu am na benn jàkka boo xam ne kenn newu ko jamono booba mu jàdd jëm ca jàkka ja dem dugg ci jàkka faamaatat mu dañal aljilbaaba muuraay gi mu dindi yërey jigéen yu mu xamoon wanadat mu ñoori ba tey al niqaaba muuraay gi koddayal jigéen li mu xamee mu dindi ko muuraay gi mu dindi ko faamaatat mu dañal aljilbaaba kodday li wanadat mu ñoori al niqaaba muuraay gi waana te man almahuha maa koy géndee ku may maa koo séen min xasaasil baabi ci xar-xari buntu bi léegi hubu na waaye buntu bi dafa def xarale comme man damay war damay foog maa ngi ko yóbbu ci xarale buntu bi de ko séen waar xubu may fuuglu maa li nga xam ne sa tub di xesi na koy feeñal mi ne xojaa bi ci kéemaan may bàyyi xel rek bu paree ci lii lu mu caa teg fa tub di xes na koy feeñal dana jàpp ci kéemaan lii daal fu mu mujj fala mansarat ba wuññeekoo mooy ba dañee ubatul xafari yërey xuruj mm-hmm. la nga xam ne tappale rek moo ko taxoon teg ci jëmmam mm-hmm. ba mu ko dindee mm-hmm. ba mu des lañ koy war a xàmmee raaytu gis naa mu hayya abi seydin xar kanamu abu seydin xasafaram ma jaral abu seydin nege moom fa hamamtu ma dal di hittewoo bi an ajuma ci bu ma bettan alayhi ci moom may dama koy bett li on ni ko ngir naa ko yedd alama ci li nga xam ne ajra jublu na ilayhi jëm ci moom mooy lim dawal hitteem may su ma ko bettee man koo dan ma niir xam ko ne ko lim def jagut de waaw ma yittewoo bi an ajjuma ci mu bettan ala yi ci ko yedd alama ci li nga xam ni foo mbirom danaa ko yedd alama ci li nga xam ne ay ajjuma lay jëm ci moom faslan xaar mu dal di jaaxaan moom islin xaar al muta mutamarridin jaaxaan ak yooyu firfirlu mu tëdd di jaaxaan man mu ne man yenn yi dugguma hmm. comme ni nga gis koosangoñ yi xam tind disanit yow am na jom daal hmm. waaw parce que lan xaamu daal de jaaxaan hmm. is leen xaal mutamarri dina jaaxaan ak way féttirlu yi su ma rafaa topp mu yëkkati xaqiratal muxarri dina siis ak way way yi xaqira muy saddit bi rafaa xaqiratoo mooy yëkkati na baatam ca kaw waaw kuñ ci mosa jam la mu daal di ko yëkkati yooxu yoox gu xiir a xiir hmm. ñu def yooxam gu xiir ga hmm. ak yëkkati siisam ga hmm. muy madrabul masali saa su nit ki jooroo baatam xiir rek ñaa rafaa xaqiratahu su ma rafaa topp mu yëkkati xaqiratal muxaridiina siis ak wéy wéy yi wéykat yi wan dafa am mu jañ yun sidu di sadd mu yëkkati baatam ca kaw commencé wéy lii na mu ne yàlla itam sienri xellante woon sama xam a dëhëri ndax sama jamono ahaata leem na leem na en man xam bi xaddi ci sama daraja li ma bëggoon a xam mooy ne li ma jamono anteen man ni wana lu may laaj bi yaakaareen see layta senri hellante woon sama xam ci bokki inn yi la bu senri doxee li si moom dañoo doyloo senri bi dootu am xabaar adahri ndax sama jamono ahaata léem na hen man xam bi xadri ci sama dara bëggoon naa xam daal ñu ma jamono àndeel man xam nañ dayoo bi maa gëj mën a nax yam dara ndax xam na moom suma jamono ku na xawri dëgg-dëgg sama xóot fil xaden ci am lay fa yegg wala xamu ndax sama jamono xam na fi maa gëj mën a naxe wala kam xat xamar su bëri na bu ma naxee ba nii doomi sama jamono bi hiilati ci sama pexe ba bi mag ri ak ci sama pexe ndax dama gis doomi jamono bi ak bu ne may lal pexe da leen ci nax muy sotti ma yaakaar ne jamono boppam bu xew xoon ci sama naxe yi doom yi ma dëkk de nax dana leen ci xeew wa kam barastu bëri na bu ma génnee bi orfin ci lu baax alayhim ci ñoom léeg ma génnee melo bu baax ay waadee ki waxi njëriñ ba naxe xam dara wa bi nukrin ak ci lu bon léeg ma génnee melo bu bon ay tappalee ki jigéen jigéen lu ba xam dara astaadu danaa rëbbee xawman aw nit bi waxatin ci waade ñenn ñi dama leen a waat a waat mm-hmm. ba seen xol toj rek ñu jàpp ne man kuñ war a taral ngir yàlla la mm-hmm. ñu jox ma la ma dem waa xari na may rëbbee bi si ren ci ci wëy mm-hmm. ñenn ñi damay wëy ay wëy di leen tagg bañ jayu foog ne ndax man nañ lu ne duñ xamante di leen tër seen jayu googu ñu jox ma la ma dem astaadu qawman bi waxdin moog wakkam barastu bi orfin benn la waa axarina bi son bi senri ma woo bi nugri benn la wa astafisu danaa hoyo fale xaqalan am xel bi xamrin ci sàng bi xallin ci beneegar xam na ñoom beneegar laa leen di nanda rek ñu mandi mooy loo dagan ci laa leen di naxee rek waaw ma kam barastu bi war fin alayhim ba léegi loolu la rek waa xalan danaa def woyofalee meneen xel bi xam leen ci sàngara am nañu laa leen di nàndal mooy loo baaxul ci laa leen di naaxee wataaratan jamono ana man saxrun saxru la léegi damay doon ak góor nekk ab sang mel ni saxru mbokkam xam saa wataaratan ci beneen jamono uxtu saxrin mbokkam saxru laa léeg-léeg ma mel ni jigéen mm-hmm. mel ni xamsa mm-hmm. mi nga xam ne mooy bokkam sax mm-hmm. xamsa woykat buuraan woykat la diwaanam mrisa moo ci ëpp dama bàyyam saxru lay nasi yàlla itam nañu jiboo woon bi saxru dee muy ko métti lu ba ni mooy génn àddina ne ma marché rek way na booyu rafet nag bokk na ci marché yi gën a xéeme ray am bis bu booba xadan bi ay ni ka am bi ay ni am waaru ñu bokk yi gën a siiw yi gën a siiw ci ne xadan bi ay ni ka am bi ay ni am waaru am darafat an xalat min aliha daaru lu bu rafet rafet la bu yéeme yéeme yéeme la ne gaañu fañ mos a dem marché moo gaasa booba ci njëkk lislaam la sumaara yi dañ daan am seen amin suñ demee suuxuma kaas dafay koy defal ab tànt bu foor ci seen tànt der yooyu ñu daan xamee su ko defee sumaara yi dañoo defal gaaral seeni wëy muy xatte ki gën a rafet le kiñ gën a rafet le mar ne wa kaas a jot imaratu siyaar bi nekk ci loxoon naa bi xatu sufiyaani xasaan way xasiida mm-hmm. boobu xasaan duggagul ci lislaam mm-hmm. xamsa itam way xasiida mm-hmm. comme ni ñu koy nettalee duggagul ci lislaam ñu ñëw fekk euh, kii naafexa fi mu toog kenn ku nekk indi xasiidam jàng yooyu ba mu pare ba mu ko defee naafexa dese tënta xasiida kii bi xasaan تجب وإن ثغرا لتأتم الهدى به كأنه علم في رأسه نار nag wax yow mu jigéen bi lool wax ne su duuloon diw sàngam mi fi génnee kon mu ne marché bi ndaw si day fi man bi ma waxee loolu nag loolu naqari Hasan Ba ñoo ko boole ñoo ko boole kan bi naqari la ko ci tegal la ko ci tegal waaye léegi ci njëkk lislaam wataaran je wataaratan jamono ana man saxrun saxru la wataaratan ci beneen jamono oxtu saxrin bokkam saxru la walaw salaktu su ma soobu woon sabilan wenn aw yoon maaloo fatan wari wuñu mi tula xamri yàgg ak sama dund su fekkoon man mel ni mbir rek ci di jaar ak ñi ñaan waadekat bi mbaa ñaan wéykat bi rek su doon loolu su ma nit ñi ràññee jeexal wala loola ñam sax ñoom rek laa de a am la xaaba konoon sooy xib yi sama banti may sar waqat yaa sama kocc kon barab yu bëri mën naa fa bañ a jëlee dara wa daamate saxonsri sama ñàkk fa xusri ak sama perte fa qul waxal li man ñaal koo xam ne laa ma yedde na ki ma yedd na ko hada lii daal xonsri may sama ñàkk nit mën la ñàkk a dund te ci pexe lii daal mooy lay ah fa doon ak a jàppale ba ma si sama ngànt su fekkee amul loo dencoon bu ko waxi ah yow wax naa la loolu qaala wax na alxaaris ibnu hammam xaaris nee na falam zahartu ba ma yégee ala jëlliyati amri yi ci dëgg-dëgg mbiram wa badiyaati imri yi ak way tumaranke jommaleem wama ak li nga xam ne soxra fa naxaat na ko fi chahrihi ci woye min hosrihi ci ngàntam su ma seetloo fi mu xàgg daal ak daal fi mu ci bëri tappale ak yi moos ni ko rab ni ko rabbee alimtu booba laa xam ne anna saytaane woon naka saytaaneem almarida su daa ji féttéerlu la yasmau du mu dégg atam ni de yeddeel wala yamalu te du mu def illa ma dara loo xam ne yu dana mu ko nam boobu laa xam ne kii ci awliyaa seytaane ci la bokk wa inna sayatina la yoxoona ila awliyaa ihim li yujaadilookum ñu su mënoon su doon benn fay wax bu wër ma yaa ni mu layee nii xam naa du ko ñu wax dara waaw su mënoon ko benn dafay wax bu wër ma fasana yi tumma daal de leem ilaa saa bi jëm ci samay àndandoo xenaan yi sama gopp bu balaa wëlbatiku na jëm ci samay gaay waa sustuhu ma yulli leen xeyaan yi sama jàkkaarloo wala maa li nga xam ne asbatoo soxal na ko xeyaan yi sama jàkkaarloo li ma gis ma xamal leen ko waje moo ñëwee dem na moo ñaam lu leen métti te day xati jooy ngir sànku ngir sànku may yi ndax seen alal ki ñu ko jox ku koy fooyee la rek la pourtant doon ñu kóolërante ala mahramatin hajaay di ca xañ màggati jigéen yi ñu ne fii moom tey la fi màggati jigéen bi jëlee daal am na ko seen mujj waaw baax na boobu na xaama bi daal di jeex